Morocco, la la la la. Morocco, la la la la. Morocco, la la la la. Morocco, la la la la. Morocco, la la la la. Morocco, la la la la. Kimoziano. Wahatiko, wahatiko. ñëpp da ngeen a génn fii tey kenn du fi fanaan tey Njaay dafay génn et mu génn génn ñëpp ay génn tey kenn du fi fanaan tey da ngeen a génn tey tey déedéet tey tey na jeex su diggante yow na ak sa papa bu ndaw na ngeen génn sama kër. ongul léegi ma jàpp ongul kii nag dama dem si ghetto bi fële ne si gars yi fële mu ne man la may puutu gars yi am jéem. kalalu waa déglul. jaay doomu war. bu ma saagal ndey sa maa ngi woor. nijaay na ngeen génn. góor duñ mel ni nijaay da ngay topp gars yi. nijaay doo def tànk yow man maa nekk di waxal lu tax tànk waaw calme mais pare wu leen jaama sax waaw déedéet góor góor duy mel ma ne ajaru ay neexal ay yooyu noonu da ngeen a génn ni kii da ngeen a génn waaw Ndiaye xam naa dina génn waaw génn si kër waaw dina génn waaye Ndiaye ndànk rek ndànk ongul eh, Farmata naam wax ji bëri na man dama dama dama dama sonn si lii fi mu nekk nii man maa gën a sonn nag man mii maa gën a sonn bay ba ma wax ongul bay ba ma wax ongul mu léegi na ongul waaw léegi la ba leen ko mu wax. li wéri koor la li wéri koor la wax ji bëri xamul njëriñ. nijaay mën ngay ruus loo nijaay yow defal na nga. daa nga taxawee ni pàcc daa nga taxawee ni pàcc booba su ma koy pok ngay jéem su ma koy pok rek ngay jéem. nijaay oncle léegi la oncle oncle Mosiano. non yaay ba oncle Mosiano. ma ngi jégalu. salaamaaleykum man man dama war a ñibbi man damay man pare naa si. non yaay ba njëriñ. salaamaaleykum man damay ñibbi. defal na nga rek dafa laa bàyyi. salaamaaleykum. waaleykum salaam yow nag yaa ma téye woon pour ma pour ma bañ a ko pootu te xanaa sori wu fa moom moo nekk asindi bi moo ah, moo ko jox ah, la gis nga kii mooy dulkat man damay su ma koy Ngeebu karase ngeebu bu gënal sax ma ñu ma uy uy uy rek onku foofu ñu ne man suma xarit la ah? follow lu follow follow bi nee naa dafa naa keltal doon foofu naa keltal. yow sax dañ ma ungul ak yéen nga rek ungul fa nangu. yéen ngeen mën ngeen waaw loo. Ndiaye Ndiaye dafa naka man. jaama moo ma fi andi. waaw salaamaaleykum. jeex na jeex na jeex ungul ungul. ungul foofu borom a ko bese ungul ak yéen ndànk. njibe ba njibe ba. Ndiaye Ndiaye dafa naka Ndiaye. Ndiaye dafa naka Ndiaye. ñu mën na faa ko bana comme la wax njibe njibe fo mo fali fo mo fali mba njibe ngo njibe may la ma one minute fo mo fali ogul fo njibe fo man rafale di ogul deux minutes deux minutes ogul no yaay ba ogul ko isa bari re fana ida ya ndemira muwelti njibe fo mo fali ñibe ongu ñibe non kuule ina diam kuule yi su ko min kada min kada jaa ay na mo ni man sama ni jaa wala na dara sokon ngo madu ngam ku ngam fali ngana na ngana ti abu ya nga fa ni nyaaje ka kontan ñing na fa ta da sunkaro kono anu sunkaru du ade dum nyanda ka bal nyanda ka yam fa ñoyel e kambe ñing ñi mi bitan neti ak mo ma bet biraanaɗo jene fo dol ko naɗumɗa joola mbaɗen teyaji ko natara mayen courto falin num ngam falinne wala nambalona ko ko moosa falin nuune nu i juso ñabu doro i juso ñabu ni a mbeɓolen ja dégg naa sa wax mun ngaa dem léegi ha ñoom nag foog ma waxtaan ak gars yi tey yo ndax mun a fanaan wala munta fanaan tey sama ya Koyam. Moroku lai lai lai lai Mungkin kita kau si jamurek. Tiga lagi. pada hmm. di Tiga lah oh, jai jai Tiga gitu fajar lagi mala ko bëgg may ni waaw ak ak tubéy bi. tubéy bi nak ben yon la ko musa sol. ben yon la ko musa sol nak mom fa ji bax di. Ya, bax na kay li mu ji bax li boko solee ak yàlla kat mu fay wecci dit. Ah. Eh. waaw nit kay mom eh foog la ñu téye ko ba suñu demee si waaw bu duggee mbuus mbuus kay. ay de. moom kay déedéet déedéet jàmm dafay gën a am ah, de. man moom dinaa leen namm trop. waroo waroo ngaa toog nag dinaa namm dinaa la jënd sax. <laughs> yow maa ngi moom nag moom nag nijaay déedéet waa nijaay boo demee nga nuyu ma waa dëkk ba. Eh. non gars yi nañ ko dégg. waaw ñëpp ko dégg waaw baax na moom kay. ko sax. waaw nijaay nga àgg ak jaama dégg man dinaa fi yem dégg jërëjëf nijaay waaw nga nuyu gars yi nag waaw jërëjëf waaw yaa ma gi waaw noonu la ke kilifa bañu woor la mooy ay nijaay dinaa namm sama nijaay de nag eh, di ko namu nag nii wallaay xuloo yi xeexi wallaay la nag yow sa jikko bi daf ma jaaxle nit ki boo dëkkee ak moom mu sàppi la bu demee rek nga namm ko si saa si. wallaahi wallaahi nijaay da nga war a bàyyi sa jikko bi de. moom moo war a baax na daal déedéet. moom yow si sa bopp da nga war a bàyyi sa jikko. la ilaha illallah. illallah taala. moroko la ilaha illallah. illallah taala.